Thank You les gars, qu'on va dans un instant entre euh, l'équipe de Ngendoyo et face Kunun arbitre di waaj sifflé nag li nga xam deuxième mi-temps euh, ñaar équipe euh, l'équipe de Ndiandoy pour l'instant mène 1 but à 0. Adja Kounava est parti entre l'équipe de Ndiandoy et l'équipe de face Kounoune Adjazou euh, rapidement ñu daal tikk daal di joxal euh, euh, passe à profondeur taclé toujours du côté de défenseur de face Kounoune qui joue rapidement ñu daal passe à profondeur directement le défenseur Adja Mam manque à contenir le bëree merci beaucoup. Ah. Attention, bon les gars, on y est. Allez, bien le défenseur. Adjé, bon les gars, on y Attention, t'inquiète. Voilà, 1 but à 0. Le numéro 15 ah, a marqué le premier but de Ndjandjoya ah, à la 6 minute de jeu le 15 a marqué euh, le premier but et récupéré toujours du côté de face Kounou passe à profondeur, récupéré toujours pour la latérale gauche de l'équipe de Ndjanjoy. Arbitre a arrêté la masse, mais euh, il y a un jour de l'équipe de face Kounou est blessé. Adjem Marem est de retour au jour. Le moment. Euh, de retour au jeu damaa jàngul tubaab bi maa moom dañ doon xeex moo tax bañ ma nee jàngal ma ne du ma mën a jàng aja Baye Thiaw kontaane naa la bu baax a baax kontaane naa la yow Baye Thiaw mon ami mon frère aja Marema maa ngi kaa kontaane c'est Saw Saw Pula Jéeri Marem Saw digoon nga ma digoon nga ma soow nag yaa ko soow daaw daaw doon nga ma dig sow da soow soow daaw maa ngay fàttaliku ma nga dëgg diggoon nga ma soow soow ma nga dëgg xaw ma nag daaw diggoon nga ma soow soow aja toujours euh, l'équipe Diagne Diagne Ndoye et l'équipe euh, de Fass Kounoune Fass Kounoune et l'équipe de Diagne Ndoye Mais pour l'instant, il y a un jour de. Voilà, les supporters de, de est là. Le supporter de Ndjanjoy euh, est là. merci beaucoup à Boubacar. Euh, Boubacar Ndiaye euh, maa ngi kontaan nee na li may Reporter, tout Touba Dima ma merci beaucoup. Ah, merci beaucoup ah, maa ngi kaa kontaane ah, lu bëree bëri. merci beaucoup Aboubacar maa ngi kaa kontaane Ndeye Fatou. Ndiaye Mbaye Fatou Mbaye nee na Fass kunun lay supporté moom Ndeye Fatou maa ngi kaa kontaane lu bëree bëri moom Ndeye Fatou acca Mbaye Mbaye maa ngi laa kontaane Fass kunun lay supporté moom moom Ndiaye Mbaye waa waa waa Ngagne de waa Ngagne Ndoye premier mi-temps ñoom ñoo nekkoon ñoo appoon vent premier mi-temps dañ doon supporté nice premier mi-temps dañ doon supporté toujours euh,

c'est Baymor Ndiaye, le numéro 10 de Fass Kounoune. C'est le Gaz bu Ndaw. C'est Gaz bu Ndaw de Fass Kounoune et là moom la kay. C'est Gaz bu Ndaw de Fass Kounoune. <laughs> C'est Fass c'est Gaz bu Ndaw euh, de Fass Kounoune, c'est le numéro 10. Adja moom Herba noonu lan lay def day jéem a xuus daal di dugg si biir mu jox la latéral Lac de Guiers daal di koy sant mu dem directement le portier de l' équipe de Ndiandoye le portier de l' équipe de Ndiandoye passe à profondeur toujours rapidement Ndiandoye et l' équipe de Fass Kounoune ballon coup franc aja toujours waa ngañ joyo ñoom ñor ba noonu passe à profondeur pour euh, le numéro 4 ñu daal téye daal di koy jox le petit da ngañ joyo toujours vraiment ñu daal téye dégagé nañ ko ñoom waa ngañ joyo ñoo ko daal di dégagé la tête c'est la capitale numéro de Ndiagne Ndoye jël nañ ñoom waa Fass ñoo ko daal di téye daal di doxal toujours waa Fass Kounoune l'équipe de Ndiagne Ndoye changement de jeu directement la capitaine de Fass Kounoune a récupéré le ballon mais qui joue Marissa, Momar bah, Marissa, qui le contrôle de Marissa. L'on passe directement à la latéral gauche. qui joue rapidement à la latéral gauche de face. Kounoun passe à profondeur du côté Joli. Oh là là Bien l'équipe de face Kounoun Kazmundao. Maris qui a fait long dégagé directement pour le numéro 17 Gazmundao. Il a fait joli contrôle, mais l'équipe de face Kounoun, Nyom à récupérer récupère le buteur, Momo Godaditi, Nyakonog, arbitre a ciblé coup franc. Arbitre a ciblé coup franc. Coup franc pour l'équipe de Ndjandjoy. Adia, Nenama, on va supporter de face Kunun on va supporter de face Kunun Nyom, essence supporter. D'ailleurs, tok ñoom waa Fass Kounoune dañoo toog ko aja caama maa ngi laa caama Wada mu ngi fees njanjooy di ma seetaan moom caama Wada maa ngi kaa kontaane loolu xanaa man njanjooy njanjooy xanaa xamoo man ñoo man njanjooy man man njanjooy waroon dem dëkk ji man sama jëm bopp booy man damay dem dëkk ji njanjooy est ama lool waa Ndiagne Ndoye nee nañ ñëw foofu dëkk si foofu parce que nee nañ bu ma ñëwee dinañ ma wutal néeg wutal ma lépp foofu. am na li nga bëgg lépp. am na li nga bëgg lépp am na fa. waaw li ma bëgg am na fa. waaye <laughs> eh, ma li nga bëgg rek. non wax dëgg si jëm boobu nee na man naa ñëw foofu dëkk si foofu. ah keroog wax nga ko nee nga booy dem dëkk si benn benn club day nekk Ngagne Ndoye. non man nëbbu ma ko nee ñaa leen nee naa man benn équipe laa am mu Ngagne Ndoye. waaw léegi am nga occasion dem fa kay da nga koy rek. baax na damay dem. aja di jaar waa Kosaan tey Kosaan am na victoire waaye victoire porte la porte daa réserve aja Marème Sow maa ngi kontaane mu ngi fees sa Ndianjoy Marème Sow di ma reetaane non waa Ndianjoy man man man man damay ñëw dëkk si Ndianjoy aja ñu daal di jouer rapidement nee naa leen demi-finale yi ngi ñëw te demi-finale buy ñëw il fallait que aussi tamit ngeen di am loo xamante ni da ngeen koy def muy lan ngeen oo faaleen ko ngeen oo ko mu attention coup franc ñu daal ci attention il a fait des ajiram mango ah. oh là là zoli ajiram mango aja ba léegi passe à profondeur qui joue rapidement ñu daal ci daal di doxal c'est le latéral rapidement ñu daal ci daal di xool Voilà le numéro commercial de Falinko est là. Il faut appeler le Falinko. nee naa leen demi-finale yi ngi ñëw te da soxla ku la accompagner oo leen Falinko mu accompagner leen nee naa leen Falinko ku mu accompagner ku ne incha allah rabi yàlla da lay defal ndam si kàttanu yàlla yàlla da koy def man maa ko wax ngi daal ci daal di doxal mais man lima jaxal wa wa wa waa Nganjoy est-ce que bëgg nañ ma ñëw dëkk ci fofu sax ah ah wa Nganjoy ñom bëgguñu ñu de ala Galaxy Foot ma ngi la contané lu bëré bëré Galaxy Foot ta aja Galaxy Foot mo nami mo frère aja merci beaucoup No demi-finale commencé ko demi-finale inshallah incha allah euh, day commencé samedi samedi lay commencé si carton yalla a rapidement joue rapidement Niratek dans le jeu. Oh là là passe pour faire le seul contrôle pour le numéro 6 de l'équipe d'Andjanjoy. Dégagé par le défenseur de face Kouroun qui joue rapidement Oh là là, Gazmundao, seul contrôle pour Gazmundao. La frappe, oh là là, il a, là. Ballon sorti. Ballon sorti euh, pour 6 euh, mètres. Mais Gazmundao, il est très dangereux. Hein. Le numéro 10. Regardez Gazounaou. Il est très dangereux, le numéro 10. Oh là là, regardez le, le là. Il est très très très dangereux. Regardez-moi. Man wa a nee na nee na invité nañ ma Adja Adja Caama nee na na ma Caama da nga may Caama man damaa bëgg a ceeb de ceeb surtout maa ceebu keccax wala ceebu ceebu mbaxalu Saalum laa ilaaha illallah Adja Diouf rapidement ñu daal ci daal di doxal lan lay defa ñoom waa Fass Kounoune ñoo ko daal di téewoon ñu daal ci euh, toujours à face Kounoune tàggale nañ ko ñu daal teg euh, rek pexe pour euh, l'équipe dañ ca njóoy et dégager coup Coup franc Adja nee na ma laf cat waay Thierno Thierno nee ma laf cat non non c'est il est très dangereux gaz bu ndaw il est très très très dangereux ah Marème jaru nga may man est-ce que waa euh, dinañ ma invité sax waa Ndiagne man man ñoom laa faral man ñooy sama équipe mais baax na rek. reprise attention arbitre a sifflé hors-jeu arbitre a sifflé hors-jeu aja caba nee na kunun moo daaxa non kunun bu daaxee te tamit nangu woo leen ma invité tamit kunun bu daaxee da ngeen may nee na ma ñëw fii yaatu kon daaw da nee na ñëwal fii kon damay ñëw ba mu neex sàngal kam <laughs> nee na sàngal kam moo daaxa <laughs> c'est saw saw seex seex seex seex nee na sàngal kam moo daaxa non man ma dem kunun ah man daal maa ngi nii toog ku ma invité daal ma dem ku ma invité rek ma dem xaw ma nag kan moo ma invité dégagé par le capitaine de la si euh, station ba léegi tey nañ bal bi moom la numéro 14 moo ko daal di tey arbitre a sifflé hors-jeu oh là hors qui joue rapidement a été Dadi le directement dans les, dans les pieds du portier de l'équipe Nganjoya dégagé pour le défenseur d'Nganjoya, récupère toujours Nganjoya qui joue rapidement il a été Dari Dakhala, Nganjoya arbitre qui dirait récupéré du côté de Face Kounoun. Face Kounoun, directement dans les pieds du portier, Marus. Maïs qui passe son partenaire le numéro sa qui joue rapidement lan lay def ñu ngi doxal Adja nee na ma kër ñëw kër Ndiaye Lo Adja Mbaye nee na ñëwal kër Ndiaye Lo ah sama gars yi nee na dañ may invité Ndeye Fatou nee na ma ñëw kunun nee na ma waa kunun dañ may invité Adja mi ngi noonu kon gars yi ñëpp ma bëgg a invité man est que xam nga na ngeen di def est que doo leen jël numéro commercial dafa leen ngeen daal di koy uh, oo boo leen rek boo leen jëlee sama numéro man ku ma oo ku ma njëkk oo ku ma njëkk oo rek ne ma naa la foofu laa ñëw ku ma njëkk oo ne ma naa la man fa laa ñëw waanaa muy kunun Sangalkam Njaxiraat gorom uh, gorom de fépp ku njëkk oo rek ne ma yow laa invité xaw ma nag boo ma oowee ne ma man fii laa dëkk man foofu laa dem aja cerno nena mo ñew fas Kunun Kunun fas Kunun ak ak ak nga Ndoye yeb ben la Kunun sele Kunun Kunun sele Kunun rek aja wa Mambilor ñi ngi sen seen boppa xadi ma bien bien a Mambilor xadi <laughs> nena ma ñëw Mambilor ah man de wax naa leen dugalal na len numéro commercial da fa len ko nena len numéro commercial da fa len ko ela

jël leen numéro Falenko est là aja merci beaucoup a ah, papa papa maa ngi laa kontaane lu bëree bëri nee na bilaay lu nañ loolu la ma waxa aja mbay nee xana duma len invité man dama len invité kay dama len invité man yeb la bëgg a invité yéen ñëpp incha allah rabi yéen ñëpp laa bëgg invité si kàttanu yàlla ajo kii jour rapidement ñu daal di xool ñoom l' équipe de Fass Kounoune

Occasion pour la Saint-Diagne Occasion pour l'équipe d'Anjanjoy. Adjekuse rapidement la Senjanjoy. Elle a ses face Kounoun récupéré pour la Senjanjoy. Pas à profondeur du côté de la Senjanjoy. Kuse rapidement directement le numéro 14 est récupéré par le numéro 6 euh, de l'équipe de face Kounoun. Directement le portier passe à profondeur. Gardien Bignakadoko. Unité Maris. Mon passe mauvaise passe non Kazmundao. Récupéré du côté de numéro 2. Peut-être deuxième but. La Oh ya ya ya ya lema. El Kharim Bla Passe à profondeur du côté de face Kounoun Face Oh là là Oh ya ya Regardez-moi la zeste de capitaine La capitaine il a fait un bon geste Oh là là le jour de face a blessé Mais il a à terre oh là là aja xappi Bosey damay euh, joué damay souhaité rek ki nga xamante ni moom moo di bébé Mouhamed xappi euh, Bosey euh, à bébé Mouhamed joyeux anniversaire aussi tamit di nga wax rek xappi Bosey à bébé Mouhamed maa ngi lay souhaité joyeux anniversaire sama doom sama xarit sama lépp moom ki nga xamante ni moom moo di bébé Mouhamed moom mooy ki nga xamante ni moom moo di mooy xadi si. Bébé Mouhamed muy doomu Khady Sy maa ngi koy souhaité happy birthday joyeux anniversaire longue vie à toi dundal ba see may di baax yàlla yàlla nga màgg dem teral say yaay dem teral say papa dem bay teral sa maam dem bay teral say waajur yëpp yow Bébé Mouhamed dama lay souhaité rek joyeux anniversaire happy birthday uh, to you longue vie à toi loo dund doyul dama ne nga dund ba see may di baax loo dundu rek doyul nee naa la loo dund gën loo def a gën loo deful nee naa la sama xarit sama doom day nee naa la sama lëm kon maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire di wax happy birthday moom mi nga xamante ni moom moo c'est le fils de Khadisy Oh là là, il y a beaucoup de problèmes dans cette euh, terrain. Nous jouons rapidement. L'équipe d'Andjanjoy qui rapidement, dégagé. Toujours euh, du côté de l'Asie, Ndjanjoy sorti en tous. Ballon sorti. Adjemi euh, Penda, Penda, Salah. benn saala nee na moom ah, Ndiagne rek ah, yàlla na yàlla may ndam ah, loolu la ma wax incha allah moom Penda maa ngi kontaane lu bëree bëri moom Penda aja ziar waa ngalam Mouhamed Diouf maa ngi kontaane mu ngi fees ngalam ma di ma dégg ngalam kii jour demee incha allah rabi ici à sat ngalal à partir de 20 ngalam eh, laa si bokk xalaat de Dakar de Kër Massar ñoom ñooy fubal à face de Rosenal moom ngalam. non non Dungalam Dungalam c'est c'est l'équipe de Diamono le gardien c'est le portier c'est le portier euh, de Fasculoun c'est Marissa il est euh. voilà toujours le numéro commercial Ansanda ñu daal di koy dugal rek nee naa leen demi-finale képp koo nga xam rek ne Falnco bëgg na la seet si demi finale Falnco accompagner la si euh, demi-finale faa leen ko ba si finale boo ko bëggee faa leen ko defal leen ko donc jël leen numéro boobu noonu boo leen ko jëlee incha allah rabi donc euh, di ngeen mën a waxtaan ki nekk si service commercial bi donc bu leen waxtaanee di leen mën a mën a indiquer daal di leen teg si yoon ba ngeen jot euh, ki nga xamante ni moom mooy l'équipe de mu ñëw ànd ak yéen daal di leen di topp seen i mbégte ba ngeen kontaan incha allah nee naa la Falnco tëngéej la fi nekkal. Fall Inco waa Rufisque la fi nekkal Fall Inco Sénégal la fi nekkal nee naa leen euh, yéen ñëpp incha allah jàpp leen ni Fall Inco la fi nekkal. aja mi ngi noonu waa nee naa leen laa bëgg ku may kii naan man aja mon ami ma frère la sama grand siyaar naa la kenn du yéen waa non kenn du yéen yéen a wóor waa RMD Ya RMT yene wor wër kenn du wër wa RMP yene wor wër kenn du yene man yene rek la top wa RMP. aja man jaar sama naataangoo yooyu ñoy wa RMP wa RMP sama nata waa RMP maa ngi kaa kontaanee eh, lu bëree bëri yo aja merci beaucoup à Papa Ibrahima man ka contane mom nee na pencum lay supporter. Adio qui joue rapidement. Touche. Touche. Qui joue rapidement. Il y a ñoom waa Fass Kounoune arbitre a sifflé coup franc. Arbitre a sifflé coup franc pour l'équipe de Fass Kounoune. rajo ba léegi ñu daal téye aja toujours awa maa laa kontaane Ndeye euh, Ndiaye euh, Fa Fanta Ndiaye Ndiaye Fatima Diouf maa ngi lu bëree bëri moom nee na kunun la dëkk mais euh, jëkkëram Fass kunun la dëkk macha allah loolu am na solo. Aja Caba nee na moom ambiance ambiance Aja nee na ambiance Voilà, il y a un jour euh, blessé. Il y a un jour euh, blessé pour le moment. Adja nous avons eu daal passe euh, à profondeur du côté de face Kounoune directement si case à ndaw bal tous pour l'équipe tous toujours pour l'ICA. ca njóoy ya tout ça pour relancer Andian Dioya qui joue rapidement ah, ba léegi ñu laajte doxal Andian Dioya attention lu wax arbitre arrêté na mu ngi wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di le jour euh, changement. aca changement Neymar Neymar entrée pour Neymar. sorti pour le numéro 7 de l'équipe d'Ngangoy. Entrée pour Neymar, sorti pour euh, l'équipe, pour le jour de, pour le numéro 11 d'Ngangoy. a joué rapidement, Tous encore joué. le numéro 15, c'est le buteur. te Ndiandoy ya mu ngi koy daal di joxaat ñu daal di koy tëlal ñoom ñoo yor bal noonu dégagé daal di génn ñu daal di koy mbëkk moom Neymar la premier ballon de Neymar la perdu est dégagé pour le numéro 5 de Ndjandoy qui joue rapidement le numéro 14 récupéré et mauvaise contrôle qui joue rapidement le numéro 15 c'est le buteur passe à profondeur le numéro 6 freine passe à le numéro 17 de l'équipe d'Ndjandoy c'est le latéral droit de l'équipe d'Ndjandoy qui joue Pertonoko Moudar qui récupère Watt il a tiré à passe à profondeur toujours le numéro 2 de Kherdeyre retenu Pratrene Neymar Neymar oh Occasion pour Neymar. Dégagé pour le défenseur de l'équipe hein. de façon que nous euh, bien joué le défenseur euh, Balbique Sadbi. La balle est sorti dans cette estade dans Galerie euh, La balle est déjà sorti dans cette estade dans Galerie

a Jamore Jamore nee na remonté incha allah attention ba léegi Ndiagne Ndoye yow le numéro 15 da Ndiagne Ndoye yow lan lay def day xuus dugg na si biir waaye ñàkk na ko ñëw waa Fass Kounoune daal di récupérer seen balle qui joue rapidement Fass Kounoune est récupéré bien joué bien La di de euh, Ndiagne Ndoye euh, qui joue rapidement face à Mohamed Bal Banoun, jolie passe magnifique euh, du côté de face Kounoun. et dégagé par le défenseur de Ndiagne Neymar qui joue arbitre qui tire sur tous pour l'équipe de Ndiagne tous pour l'équipe de Ndiagne Ndoye arbitre a tous pour l'équipe de Ndiagne Ndoye Adja Moustapha Fall maa ngi laa kontaane nee le numéro 10 de Fass il est très dangereux ma il est très dangereux gaz il est très très très dangereux Bon, arbitre avantages avantage le numéro 8 passe à profondeur du côté de Ndiaye à face face de portier il a ramassé le ballon il a fait une jolie ramasse pour la ballon oh là là Ndiaye voilà le fumogène de Le fimosène de rapidement, Adja ah, rapidement. Qui joue rapidement. Nous arrêté. Dari Dohol, Wafas Kounoun. que nous récupérer nous. qui le numéro 13 passe à profondeur N'y na mu daal Récupérer récupéré Récupérer balam passe en tout. Je joue rapidement tous hein, pour l'équipe. Hein. Tous hein, pour l'équipe. déjà dégagé. Mokonungo, Nyom, Adja Joy, Nyogadi Moko. Récupéré pour le défenseur, le numéro 6. Denjanjoy de face Kounoun qui joue rapidement. L'on passe directement la baie oh à la tête. Mais directement dans la, dans la des portiers. Adjel qui joue rapidement. Le carré, le capitaine de supporter est là. <laughs> Pas à profondeur directement. Euh, Neymar Oh là, il est là Arbitre a couvre arbitre a sifflé a donné un carton jaune pour euh, dame, pour la <laughs> euh, de l'équipe de Fas Kounoun c'est le capitaine de Fas Kounoun c'est le capitaine de Fas Kounoun arbitre a donné carton arbitre a donné carton à Koufran. coup franc coup franc dangereux pour l'équipe. Hein. Voilà, le supporter de est là. Regardez le capitaine de supporter de Regardez le capitaine de supporter de Ndjanjoy. Le supporter de Ndjanjoy a zibilé. Le supporter de Arbitre a donné carton rouge. Arbitre, regardez-moi, c'est une bataille. Regardez-moi, c'est une bataille. Regardez-moi, c'est une bataille, bataille. Bataille psychologique. C'est une bataille de, de psychologique. C'est une bataille de psychologique. Le un Koufran franc. Dangereux. Coup dangereux. Pour l'équipe d'Andjanjoy. C'est le capitaine d'Andjanjoy. Et euh, petit, être euh, le Coco Lailaï, C'est le capitaine d'Andjanjoy. Avec euh, le zéro d'Andjanjoy, c'est Coco Lalaï. Acaba ne ya? C'est le capitaine euh, Kofran. Kofran pour euh, l'équipe d'Andjanjoy. Attention, Koufran tiré. La frappe. Oh Koufran passé. Oh là là. on euh, joue rapidement. Ndjanjoy et l'équipe de nous avons euh, toujours récupérée par le numéro 6 Talasé la Ngandoy toujours le numéro 6 la la Ça entre euh, toujours le numéro 2. La frappe euh, au contraire. Toujours ñu daal tiiwaat cette la joué Je ñoom waa Fass face que nous récupéré Nous mu daal c'est Kazmu Ndaw face à profondeur pour le numéro 2 face à profondeur attention c'était goal goal goal goal le deuxième but c'est le Gass Ndaw c'est le Coco Lay Lay le but marqué c'est Coco Lay Lay Coco Lay Lay a marqué le deuxième but de Ndiandoye le bir janjo koko layla koko layla e a marqué le bir janjo koko layla koko layla e a marqué le bir koko laay laay oh là là koko laay laay a marqué le but de Ndiandoye c'est koko laay laay koko laay laay oh koko laay laay koko c'est le Cocolalaï a marqué le but de Ndiaye oh là là Cocolalaï oh là là Cocolalaï a marqué le deuxième but de Ndiaye la 79e minute de jeu Ndiaye bonne oh 2 buts à 0 2 buts à 0 pour l'équipe de Ndiaye c'est Cocolalaï a marqué le deuxième a marqué le deuxième but Ngagne Ngagne Ndoye deux buts à zéro pour directement Koko toujours Koko Laay Laay le joueur de Ngagne c'est le numéro 3 va dem directement Neymar. Neymar monte ballon, le contrôle Neymar. Toujours à Neymar. Oh là là, mauvaise contrôle. Oh là là, arbitre. Adjezou, rapidement, il a tiré L'équipe de, face Kounoun. Mon ballon, là, il faire qui rapidement, parce que nous encore euh, passe à profondeur du côté de face Kounoun qui joue rapidement ñu daa dem oh là là yaa illallah daa noonu findew il avait une findew <laughs> il avait une xambadaka <laughs> oh là là oh kooku laay laay il a marqué le deuxième but c'est Kokalaya. Il a marqué le but. Le deuxième but de Ngandoy. Kokalaya a marqué le deuxième but de Ngandoy. On va jouer 81 minutes de jeu. 81 minutes de jeu. 82 minutes pour l'équipe d'Anjanjoy. Kokolala a marqué le deuxième but d'Anjanjoy. Adjezou rapidement. Corner pour Gazbundawa. Corner pour Gazbundawa. Corner pour Gazbundawa. Corner tiré. Pacas Ndao centre la tête de défenseur de Ndiandoye oh là là oh, regardez-moi c'est le tulli de loupé ah. joue rapidement Ndiandoye ñoom ñaar ban le numéro 3 de Ndiandoye passe à profondeur du côté le numéro 2 de la Sen Ndiandoye toujours euh, beneen passe kooka laay laay kooka laay laay laay laay joue rapidement aïe ah, hors jeu <laughs> oh regardez c'est le Coco Lailai. <laughs> Coco Lailai a marqué c'est Coco Lailai. Coco Lailai, c'est le jour euh, de Ndjanjoy. Le est blessé. Le numéro 2 de euh, Ndjanjoy est blessé. Oh là qui joue Adja merci beaucoup. Adja PBG nee ma félicitation Mame Ngagne. Adja Mor nee na ma félicitation Mame Ngagne Moxtala. Adja Makumba Thiaw nee na ma match bi 3 lay doon. merci beaucoup pour Mame Ngagne. merci beaucoup les gars. Moustapha nee yàlla rek a mën. nee ma yàlla rek lay ñuy ñu daal tey merci beaucoup. Adja toujours sànq Coco Layla est sorti Coco Layla est sorti Coco Layla est sorti voilà Coco Layla est là Coco Layla Coco Layla tey maray la Coco Layla Coco Layla Coco Layla tey maray la Oh, Koko là, il a, marqué le deuxième billet. Hein. Oh là là, regardez-moi Coco Laila. Ah, On va jouer 84 minutes. Il reste 6 minutes. Plus temps additionnel. Hein. Il attire. Ballon sorti à 6 mètres. Ballon sortir à 6 mètres. a là. Adjabalegi à euh, 6 mètres pour l'équipe d'Andjanjoy. Le, portier d'Andjanjoy joue rapidement. Passe à profondeur pour le numéro 17. Joli passe magnifique qui joue rapidement. Vous Ndiantem que nous passe du côté ah, le numéro 3 de Qui joue rapidement dégagé ah. magnifique ah, et dégagé maintenant pour la défenseur de Kounoun. Qui joue rapidement à lay def nañ ko mu di camp pour euh, l'équipe aca merci beaucoup Andai Fatwa neena ma neexul ba neexul mais li ngay reporter neex na merci beaucoup non man dama bëgg ngeen contane dama bëgg ngeen contane bëgg seen xol sédda motax té neena len donc falen ko ñun ay yeen ño far té da ngay xol ni tay ji ni ñun buy reporté faruñu fenn njaaxaanaay la lay tudde nday ji seex lañ liñ naan nday ji seex day day tëddee njaaxaanaay ñun njaaxaanaay lay tudde tëddee amuñu kenn kuy faral donc ñun bal bi lañ faral ak terrain bi donc yeñ ñii di dugg ci commentaire di saaga ngir yàlla yonent bi donc bàyyi leen saaga yi ñun faraluñ kenn ku bañ nag ku bëgg nag donc déggalu la métti bàyyi leen ñu liggéey suñu liggéey ñun defuñu leen dara dañuy liggéey te dañoo bëgg askan bi kontaan yéen ñu dikk di commentaire commentaire yi négatif jàppaleen ni euh, yàlla yàlla baax na nañ toog di seetaan rek ah nee naa leen invité leen ma ngeen bañ instant kenn nangu ma invité kenn kenn kenn waaye garaawul taman dama ne woon dama daam fu may dem dëkk ji foofu Adja Khady Faye nee na Moustapha bëgg naa la invité Adja Khady Faye man ku may invité ku ne am nga gan Adja merci beaucoup a Thiama maa ngi laa man ku may invité ku ne jàppal ne am nga gan nee naa leen euh, ku may invité nag may woo jël leen numéro commercial bii nii nee na ngeen euh, nee naa leen ngeen woote si c'est le numéro commercial de Falnco nee naa bi ku ko oote ku ne dinañ la jox sama incha allah rabi ñu jokkoo nga wax ma nga wax ma euh, kañ nga ma bëgg a invité allah rabi ma ñëw foofu noonu. ma ñëw euh, dëkk ak yéen euh, waxtaan ak yéen euh, ngeen invité ma ma ñëw añ si añ bi lekk ceeb bi lekk lekk ndekki li yëpp nee naa leen dama mën a lekk te balaa maa gën a mën a lekk dëgg dëgg ma gis mbaxalu Saalum mbaxalu Saalum mbaxalu Saalum ma gis mbaxalu Saalum wala ceebu kecax oh la la faatu mbay nee ma kunun dëkk la Je suis rapidement ñu daal ci la pour l'équipe de face Kounoun. on va jouer 89 minutes. minute de jeu face Kounoune à coup directement le du portier de l'équipe de Gandiaye Koufa, merci beaucoup à Marem Saw non man nous mën a lekk Là là là illallah man rek non man damaa mën a les lekk Adja Koumbali nee na ma Sonkando yooyu moom Koumbali Adja qui joue rapidement ñu daal di dem ah. l'équipe de Fass Kounoune ah. et l'équipe de Ndiandoye ah. mais Ndiandoye pour l'instant mène 2 buts à 0 le premier but, le numéro 15 a marqué le premier but de après le à 6e minute le numéro 15 a marqué le premier but de mais à, la, à la 72e minute 72e minute de jeu, c'est le numéro, c'est Lalaï, a marqué le deuxième but de Ndjanjoy. Dari si Nganjo yo, Ndoye la capitaine de Ngagne la frappe attention attention oh il est là hors Neymar a ah, hors Neymar a ah, hors aja ndai Wade nee na ma nee na nee ma nañ ah man wax naa ne bëgg a invité dugal naa numéro da ngay jël numéro bi nga jël numéro bi. boo may invité rek boo ma oowee man dinaa ñëw incha allah. aja jour rapidement lan lay defa ah? numéro 14 c'est Koko a marqué le deuxième but oh, oh mais le ballon est sorti mais ici il deux ballons dans cet stade de merci beaucoup Ndaya Ndeye Fatou oh, li merci beaucoup Buzz Dakaroua, TV merci beaucoup Yalna na jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg suñu réew Sénégal Nenalène, len leen euh, rek mo jara ñaan mbokk oh là là corner encore non non c'est deux bisons Adji Diouf rapidement ñu daal di daal doxal centré ah, regardez le portier il est wéeru dans ce poteau. booy looy soxor booy looy soxor booy looy soxor booy looy soxor coumère temps yuuxu <laughs> waa neexul yuuxu aja passe à profondeur arbitre a sifflé hors Arbitre a sifflé hors-jeu pour l'équipe. Merci beaucoup à Zala Nous sommes les Songando merci beaucoup à Zal manque ngi Mon kontaane Songando di euh, le supporter de Songando mais à troisième heure l'équipe de Songando voilà ans. pour l'équipe Tanja le numéro 8 André pour ressortir. le numéro 6 Hein. Le meilleur jour est sorti. Le meilleur jour est sorti. Le meilleur hein. jour est sorti. dis rapidement. L'équipe d'Andjanjoy et l'équipe de Faskounoun qui joue au final daal doxal parce que nun na na dafa mbok nañ ko mu daal genn ñoom waa Njanjooy ki doon la ballon toujours rapidement Njanjooy ñoo té ballon non la lay def parce que nun rek récupéré waat ka ñàkkaan nañ ko waa Njanjooy parce que nun daal rek récupéré waat ñu daal wa daal di doxal la di wax 3 te parce que nun la wax 7 17 te parce que nun oh là là jolie passe magnifique ñu ko la frappe la frappe manquée Adja merci beaucoup ah. Doudou ah, Sarr ah, maa ngi laa kontaane moom Adjel ak Teungueth FC lay supporté moom Adjel ak Teungueth FC lay supporté Doudou Sarr Adja ñu daal téye daal di joxal toujours 2 buts à 0 2 buts à 0 pour ci suuf rapidement ballon bi delloo nekk ci ginnaaw oh là là regardez-moi le numéro 15 oh là là ay di di daa il xarab Allah Allah wa yir wala Allah min ya latif al khilla asim la Serigne Mansour Ndoye am contact ba le numéro 14 le numéro 13 capitaine oh là là bien joué bien joué le défenseur on retour euh, pour le défenseur euh, de que mais il est découragé regardez-moi le défenseur mais pour l'instant il est découragé qui joue bien, le numéro 11 Neymar moo Balbi, toujours le numéro 13 c'est le capitaine attention ba léegi Balbi si bien joué la capitaine a dégagé le ballon qui joue rapidement, récupérer toujours de gagne il y a un ballon, le numéro 2, arbitre qui dit rien du tout. il gagne efface récupérer pour la capitaine. La France. Oh là là l'équipe de Fass pour l'instant 2 à 0 pour match est terminé l'équipe de éliminée l'équipe de est qualifiée pour l'équipe de est qualifiée Ndiandoye est eh, qualifié qualifié de Ndiandoye oh là là l'équipe de Ndiandoye est qualifiée l'équipe l'équipe de Gandoy eh, est qualifiée. ASC Gandoy, ASC Gandoy. Voilà. mon ami. hello siyaar am. waaw kontaan rek. ak mbégte bu baax a baax. si bi dama demi-finale rek. loolu moom mbégte daa si am rek. waaw mais ban message ngay lancé supporters yi nga xamante ni mun naa ne depuis compétition ba léegi noppalikuñu ñu ngi si ginnaaw équipe bi poussé que même ñi nga xamante nekkuñu stade sax ñu ngi seetaan a travers de Falnco di commentaire di supporter fi ñu toog dañuy supporter bëgg a ngañ doy am ndam. waaw supporters yi moom ñun ak ñoom comme ni ma la ko waxoon daaw rek noonu laa la koy waxaat ren ñun ñoom noo far ñoom dañuy nekk si biir ñoom ñu nekk si biti. kon yaakaar naa loolu mbégteel aussi tey kunun bu amee ndam ñenjooy ndam. tey ndamul dëkk bi yëpp la mooy supporter ak joueurs yi ak ñi nu bàyyi dëkk ba tamit aussi tey kilifa yi ñooy kër ga maire yi ñooy kër ga ñëpp di ñaan pour tey nu gagné te match bi aussi derby la kurun face moom la wax tey bu nu yàlla may ndam tamit aussi dañuy gën a kontaan gën a mbégtewaat rek aussi di xam ne tamit tey suñu objectif mooy liñ jëloon daaw ñu fexe ka garrawaat ba jëlaat keneen loolu mooy suñu bëgg-bëgg te loolu lañ bëgg te incha allah loolu mooy am. loolu laa lan bëgg. lan ngay tàggatoo. waaw di métti amaat kontaante bu baax aussi si Fall Inco tamit ndax gis na lu sa guur ku nuut même beneen mas bu am sax ñëpp moom la ñuy seetaan yàlla xam na loolu ndax sa xam na ne Fall Inco ak maa ne Fall biir kunu la nekk yàlla xam na loolu man man bu ma ñëwul terrain kal man ak sama gars yëpp ñu jour aussi tamit yaa wax si kunu lu baax. dañuy ñaan yàlla comme ni ko waxoon daaw rek yàlla ngeen gën a bu baax nu gën a amaat mbégte gën amaat kontaante bu baax ma lay gërëm yow dina sant ndax borom baax nga bi nga xamee bi nga jàppee ba léegi bàyyi woo yàlla na yàlla defal jàmm aussi waaw. encore une fois ba léegi rek ah. félicitations à l'équipe Tandian Diohio félicitations aussi tamit. à l'équipe de Fass Kounoune maa ngi encouragé toute l'équipe de Fass Kounoune di encouragé di félicité aussi tamit toutes les supporters de Mbam Gueye Ndoye a gaay mi ngi noonu damay daal di préparer li nga xamante ni ah moom moo di troisième heure bi dox ci diggante ma di euh, troisième heure bi nga xamante ni ah moom moo war a am léegi nii fii ci stade Ngalandou Diouf diggante Songa Ndoye euh, la war a daje ba léegi ñu daal doxala aja xaar ma xool instant gars dañoo kontaan la supporters yi ñoo kontaan la waaw mais grand siyaar naa gis na ngay sànni rajo rek supporter play ba ASC ñooy waaw nekk ci équipe rek waaw kontaan am mbégte nekk ax ah, doon fama suñu rakk nag waaw lépp euh, bokk ci ASC ñooy lépp waaye mais ñu def ko nag ci fair play parce que fan yëpp loolu lañ doon woote si non à la violence te yaakaar naa ne tey yàlla may nañu ndam ñu nekkoon champion daaw war koo firndeel nag pour defar euh, pour préparer demi-finale yi waaw di sant ñëpp di boo ñëwul stade fooy seetaanee match bi. man euh, TFC. TFC mooy wan télé. mooy TFC laa koy seetaanee moom laa koy seetaanee saa su man melomaanu stade bi la chaque jour maa fi quoi. merci beaucoup maa laa kontaanee aja mu ngi noonu. kon donc ah, gars yi damay ah, damay. Ah, damay yow gaay mi ngi noonu kon dama leen di ah, joxaat rendez-vous rek si kanam ah, tuuti ah, si diggante l' équipe de Songane Ndoye ak l' équipe de Cité Mbab Guissé nee naa leen mbas bi am tamit oh. match derby la maa ngi ñëw léegi maa ngi dem maa ngi ñëw may leen ambiance de la CA Mame Ngagne Ndoye Mame Ngagne Ndoye est maam Mame Ngagne Ndoye est qualifié en tout cas Mame Ngagne Ndoye est qualifié pour la demi